di nuyu directeur entreprise bi fi teew nga xam ne ñooy suñu bokki chinois yi waaye di nuyu Koulta Ndiaye mi nga xam ne moo fi toggal directeur général Aserou mi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di leen dalal jàmm li ko sëriñ bi waxee di ubbi rek waxtaanu di ci wax rek ne defe naa ne yàgg nañoo pause militaire yàgg nañoo immigré ab liggéey waaye tey nag delloo nañ nit ak cëram ndax defe naa ne li ñu toog teg pause communautaire wala ñu immigré ab infrastructure ci kër Cheikh Ibra bariwul ndax nit ñoo xam ne wutuñu dara bugguñu dara duñ laaj dara lépp loo xam ne jur na rek ñu jébbal ko Serigne Touba kon nag te Serigne Touba waxoon ne ku liggéeyal Serigne Touba taalibe lay fay kon président de la république def na ba tey waaye tey jii def na lu jara def def na lu am maana jox na ko ko mata jox def na ko fu ko mata def jox na nit aussi dayoom bi ko yàlla jox ndax bu dee bu sëqee jox daaru karim sëq jox sëq jox Cheikh Ibra ah def na lu ko mat kon nag faw sant ko ndax sëñ Abdoul Ahad de moo wax ne ku ma defal ba ñëpp lu ñëpp gis ma sant la ba ñëpp dégg moo waxoon ne bu ma sant ku ma defalul dara waaye boo ma defalee lu ñëpp gis ma sant la ba ñëpp déggoo ko na lu ñëpp wax ji du gudd dañu leen doon dalal rek di siyaare waa kër Maam Cheikh Fall yëpp di si nuyu sama bokki taalibe bi yëpp di sant président de la république bi nga xam ne tibbal na sëñ na Samba tibbal sëñ Modou Moustapha tibbal seen Ibra séddi leen di ko ñaanal ñi nga xam ne ñoom la fi teg ñu nekk ci teddeliste bi di campagne lii mu bëgg yàlla ko ci yàlla defal ndam loo xam ne ni musu koo am ndax nit kat bu defee lu lu kenn musa def suñ borom yaakaar naa ne dana la gën booy boo nga séenu ndam lu kenn musa am te ñu ngi koy ñaanal ndam loolu di ko yëkkati ci turu son excellence président de la République Macky Sall muy feeñalaat yéeneem ñi nga xam ne moom la am ci Touba di jiital ci nuyoo bi ziyaare Cheikhul Mountakha li nga xamante ni mooy kilifa yoonu mooy yépp waaye di ci teg suñu am ni li nga xam ne mooy kilifa waa ko maam di ziyaare ñi ci jotaay bi ñëpp suñu ay waajur ak suñu ay mag suñu mbokk bi di indi nuyoo bu ànd ak ziyaara bu son excellence président de Macky Sall ci taxawaayam ci biir Touba ak yéeneem ak jëfam ñu ñuy war a tàmbaliwaat tey mu dolli ko ci lim ci jotoon a def loolu mooy lan ñëw ci kër ndigal ñëw ci kër jëf di fi feeñalaat yéeneem ak jëfam ñu war a tàmbali incha allah tey di def teg xeeru ñëpp di tëli bi nga xam ne moo jóge ci soppi ko ci tëli bu mag ba ba jëm si ci kër Cheikh Ibrahima moom la ñuy teg xeeru tey kon sëriñ bi ñoo ngi lay sàkku nga ñaanalal ñu son excellence président bu Macky Sall jàmbar ci yéene rafet yi nga xam ne am na ko ci Sénégal waaye rawatina ci biir Touba te dara warulu ko lu xam ne dëkk bi am na lu fi wax ci fànn yëpp ndax lii ñuy def fii kat ñu ko monsieur le maire Abdou Lahad Ka waxee rek koy jëmmale ci kër Cheikh Ibrahima dafa def président Macky Sall dafa annoncé 31 décembre ne day def 2500 kilomètres de route ci cadre PSD. PSD nag financement la boo xam ne moo ko jëlali boppam. Angleterre indi ko laalewul ak lenn ak kenn ak dara maanaam tali yi wax fii ne dañ koy liggéey financement bi bugg nañ ko ba pare xaaruñu trésor xaaruñu kenn loolu aussi mën naa leeral pour wan ko tàmbalee yeggale ko dina yomb insha allah te loolu tam ñu ci xaar seeni ñaan bu baax bu loolu weesoo aussi tamit ci loolu yi ñu jóge ci la bokk tamit daaru karim ci la bokk pencu sëñ Afe ci la bokk pencu Daaru Rahman Daaru di ma ci la bokk marché Ocass gis ngeen ne tàmbali nañ mooy boo jógee Daaru Salaam Mbàkke jëm Touba ci la bokk ak boo jógee ba ci autoroute bi boo leen seetloo màggal Touba bu ñëpp ñëwoon loo yegsee lot ci péage yu Ngaabu day xat léegi ci waxtaan ak Cheikh Bass Abdou Khadre ak waa Touba ñu ne dañ itti yoon woo xam ne boo yegsee ba ci ngaabu day mën a continuer nag président Mbacke mu doon boo yegsee foofu nga am ñetti yoon yoo mën a génne autoroute eh bi nga jàdd jëm ngaabu jàdd jëm Jannatul Mahwa ba nga continuer jëm Mbacke ci président bi boobu aussi ci PSD bi la bokk dañ koy tàmbali liggéey boobu aussi beneen entreprise da koy def bu bokkul bii bokk fii waaw lii ma cité aussi du benn entreprise da koy def la déedéet énam sur ci la ci la donc entreprise yu bëri au moins ñett wala ñeenti entreprise lañu doon Touba pour tàmbali defal doon liggéey yooyu donc du benn entreprise buy cap ci cap ci déedéet loolu aussi bëgg naa mu leer ci jox mënuma nag euh, terminer te sëñ bi da ngay may ma jéggalu ma jéggalu bu baax ma jéggalu bu baax a baax a baax ci yeexaay bi du suñu coobare nag dañoo àndoon ak ay kilifa moo tax te dañu cérémonie bu mag a mag bi fii lañ ko prévoir ci Pencum Baye Fall loolu tax ñu ne fii la ñuy mujjee dafeki cérémonie bu mag bi doo tëj loolu rek a tax ñu yeew suñu bàyyi yi nekk suñu sëriñ yi fi toog toog fi yàgg di ñu xaar te yëpp xam nañu taalibe murid yaru ndigal ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax ci bu yàgg di xaar lu ci manqué nag man la waaye daal ci tënk loolu laa bëggoon a wax wax leen ne aussi président Macky Sall lii ñu sant dama leen koy wax waaw la sant bu ñu jógloo ñoom danañ ko def defuñu genn wàll dem dañuy ñëw defar ko bu ci yàlla nit loolu na naa leen ko mën a leeral di wax nit ñi aussi ñi ci nekk ñëpp jiital ci suñu sëriñ si ñu ñaanal ñu lii ñu bëgg a tàmbali yàlla defal sutura dimbali ñu bañ yeggale ko jàmm ci barke Sëriñ Tuuba barke almantexe naa pasar muñ bi keroog ba nga xam ne ndaw yi ñëw nañ fi bàyyi ko ci jiitu réew bi ñëw di tàmbali seen liggéey bii ñu tàmbali ñëw si sëriñ bi sakku ñaan si moom sëriñ bi daf naa wax ni ma nee leen moom de maa koy sant maa ngi koy gërëm ndax sama xarita day ñëw fi man day diisoo man waaye man de sama bëgg weesuwul lépp lu sëñ mu doxaa bëgg rek ma mën koo def lu ma digal rek ma mën koo def liggéey bii nag ñuy taxaw tey jii nga xam ne moo nu fi dajale bokk na si luy yombal Serigne Amdi Fall ndigal li nga xam ne moom la bëgg a jëfal Cheikh Modou Moustapha ndax liggéey bii dafa doon yéene joo xam ne dafa mottali ko muy yéene joo xam ne Serigne Modou Amdi Fall jàmbaar ja da koo amoon ndax ci moom jëmmam ji la Cheikh Abdoulaye Mbacké jaarale woon bërëb bii teg ko si loxoom mu saytu ko ba mu mel nii mu mel dikk bii ànd ak njabootu gi defar fi kër Cheikh Rafal gi nga xam ne képp ku fi dugg da xam ne lii méngoo naa ko lu Cheikh Fall moom ba noppi daal fi teg yoon moo xam ne képp ku fi toog ci jëmmi Cheikh Fall kër gi sa moomeel la yaa ko yilif te kenn du ko werante ak yow loolu noonu la loolu fi Cheikh Fall bàyyil waaye Cheikh Modou a wutu Cheikh Fall si sët daal mel ne la sëñ Fallou daa wax ni man maam rek laa waaye bàyyee ngi ñëw waaye bi sëñ Modou Aminta Fall ñëwee dafa jëlaat yoon wi tegaat ko foo xamante ni fii kenn ku Baye Fall kuy wuyoo Cheikh Ibrahima Fall da xam ne yow benn yitte dong wala wenn yoon képp nga am muy bëgg sëriñ bi ak di ko liggéeyal rek di déglu ndigal te bañ a jaar si lenn lu muy tere waxtu wu ndigal ba tee rek nga jëfe ko ni ko sëriñ bi diglee kon yéene jooju yi tey jii moom ngeen ñëw tey di ko mottaleel sëriñ sëriñ Modou Aminta Fall moom mi nga xam ne mooy président de la république di chef de l'état di Macky Sall bu fekkee yàlla sunu borom dogal na mu am taw mottalil ñooñee ñëpp seen yéene waaye liggéeyal Cheikh Rafal lu toll nii te ku liggéeyal Cheikh Rafal sëñ Tuubaa nga liggéeyal sëriñ bi nee na mi ngi koy sant mu ngi koy gërëm mi ngi koy ñaanal nee na mi lii de moo wax si biir bu nekkam loolee yëpp li ko waral lu yëpp ma xam la ndax Serigne Touba da koo sédd bu yàgg jàpp ne lépp lu ñuy séddalee di ko séddalee Serigne Touba rek Cheikh Rafal war na sa amul cër nee lii nag doon lu rafet di cër bu am njariñ ndax dana suqali aw askan dana neexalit ak dëkkiin mu mel ne dem bi ak dikk bi jàppandal ko dana yokk koomum réew loolu mi ngi mel ni sunu njariñ la ñun ñëpp kon bu fekkee ni président dafa am yëg bu dol noonu xam ne yitte am na fi mu ñëw fas ko yéene saafara loola na xam ne lislaam la ko defal te lu nu defal lislaam rek Serigne Touba lañ ko defal Serigne Touba nag lépp lu maam sédd na si maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan nag mu yaatu nee na aw yoon ak loo xam ne luy leeral nit ñi ak fu nu mën a fajoo ak yu ñu demee dafa mënta ñàkk ci aw dëkkin bu mbooloo nekk fu ne jaadu na fa kon bu nu ko defee fii manes naa rafet njort ni leneen a ngi ñëw ñu ngi koy tàllal loxo bu baax di ñaan lépp mag te xam ne lu jëm ci Serigne Touba rek war naa jëm ci Cheikh Ibrahima Fall Serigne bi nee na loolu lañ amoon ci luñ ci wax nee na xam na ni kàddu yi du gudd di di di sa jub kay Mbàkke jub na lool Mbàkke ne sëriñ bi ne da koo tàmmut dañ koo tàmmut ne loolu rekk la waaye sëriñ bi ne lu si dëngit ne ne ñu xam ne si si si sëñ bi la rek waaye waaye du sëriñ Bas mu mu jógee nee na loolu la si am lu muy wax